mbokk yi xel ñooy nuyu leen jaajëfal euh, ci teelu bi seen euh, émission face face dellu si ñu ngi fi nga xam ne nag euh, mooy Anne Marie Nas Anne Marie Nas ñu am mbégte pour la première fois dans cette émission ñu am maître Khassimou Touré avocat bu barreau Dakar kenn dootu ko présenté ci mim réew ñu fas yéene nag waxtaan ak moom ci actualité nationale rawatina nag bu judiciaire bi ndaxte jamono ji bëri na loo xamante ne nii dafa aajo ci wàllu yoon soxla nag ay éclairage am euh, mi ngi nekk fii ci sunu plateau ñu dugg rek fekk si ko fa tout de suite. grand maître Khassim Touré. Eh, ma chérie. <laughs> grand comment vas-tu. maa ngi lay ziar. ça va bien. merci euh, ci ni ñu dalalee. oui jërëjëf. <laughs> je peux m'asseoir c'est un plaisir. je sais. prenez place merci beaucoup. ça va bien. <laughs> alors grand ma bàyyi la nga nuyoog Sénégalais yi ñuy seetaan. waaw jërëjëf. auzu billaahi mina sheytaani rajiim. Mhm. bismillaahi rahmaani rahiim. barke Xaadim Rasuul. maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. te du rafet la trop invitation bi ma invité. Mhm. di nuyu gën googu nga xam ne fa ngay yëngatoo muy mhm. waa GFM. alors grand ñu dugg nag euh, directement ci sa sa porte ndax yow li ñu war a waxtaan dafa bari moo tax euh, amul taxaw dañuy euh, dem directement amul seral mu ngi gane si àdduna Kaolack Serigne Khassim gën ko xam ci maître Khassimou Touré avocat la dugg na ci barreau bu Dakar ci atum 1994 njàngam primaire amal ko ca Guinguinéo. étude secondaire ci de la fosse mu am fa sax bac série B gannaaw gi ñu orienté ko ci fac 3 ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar am fa licence ak maîtrise S sciences juridiques option droit public am fa DEA en droit option droit public doon major de la promotion doctorant en droit public waaye am na certificat d'aptitude à la profession d'avocat ci maître de stage maître Madi Kegnon moom mi doon xamle ci rapport nga xam ni maître Hassimou Touré ci jamono joojee bindoon na ko ne dina ñëw mu doon avocat bu mag Touré jot a doon coordonnateur pôle avocat yu bëri ngir layal bokk na ci Talla Sylla Latif Gueye Madiambal Diagne ba ni muy bokkee jamono ji ci avocat défense bi ci mbirum Khalifa Sall avocat conseil société ak institution la moom it jot naa doon membre conseil de l'ordre des avocats du Sénégal maître Khassimou Touré membre associé chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolack la par arrêté ministériel muy xamle ne nag bis ka nga xam ne nii moo ko gën a neex ci dundam mooy ba mu tuddee doomam kii Touba Cheikh Ahmadou Bamba Maître Khassimou Touré, membre Association des écrivains du Sénégal, ndax doon na président commission juridique et contentieuse moom sax am na téere bu mu bind di ab nouvelle tuddee ko le clin d'œil de l'aveugle nominé au grand prix du président de la république pour les lettres vice-président comité directeur Jeanne d'Arc bu Dakar la président commission juridique et contentieuse doon membre et diplômé d'honneur ay association école ak organisme bokk na sax ci ab décoration buñ ko defal muy diplôme d'honneur bokk ko ONG Jamra jox maître nee na la mu bëgg mooy ku am sutura dëggu la mu bañ mooy soxor naafeq kañaan. alors yaa ngi juddoo Kaolack euh, atum 1963 euh, sa profession ñëpp xam nañ ko avocat nga waa ñu toftal ci écrivain écrivain bi nag dañ ko dugg ci ci biir euh, dañ ci ñëw ci biir yaatal waxtaan bi bu ci kanamee sa réussite bu gën a neex mooy sa doom bu góor bi nga jox Euh, turu euh, Cheikh Ahmadou Bamba voilà loolu muy muy mu nekk lu rëy mm. sa déception bi gën a mag euh, mooy sa waaju bu góor bi la mu liggéey ci àddina bi si Sénégal rawatina Guinguinéo te amul benn damati miir bu bu am turu loolu lu ma métti la surtout mm. parce que El Hadj Cheikh Touré yàlla yàlla yokk leeram dafa ko bépp jullit mm-hmm. dafa liggéeyal Sénégal mm-hmm. liggéeyal waa rawatina waa Guinguinéo mm-hmm. doon faj bu mu gàccee di ko def discrétion bu total nag taxaw ñu bari. Mhm. yóbbu nit ñu bari màkk. dëgg la boo limoon ay turandoom. Mhm. ëpp nañ cent trente. xam ku am téeméeri turandoo ak fan yooyu topp <laughs> kooku nit ku baax nga ba mu noppaloo liggéey ba léegi mhm. gisuma benn rue wala benn avenue wala benn édifice gàññi ne googu mhm. mun dëkk ñu tëddee ko ko loolu dafa metti incha allah sa plat préféré euh, euh, di di côtelette grillée ak euh, ceebu jën bu weex ak ceebu jën bu weex bu am suuf <laughs> bienvenue au club mhm. sa musique préférée musique sénégalaise de manière générale waaw mbalax d' abord mbalax d' abord waaw <laughs> alors grand fi ñu jeexalee portrait bi mooy jamono ji lan moo la gën a énervé ci réew mi ñu bokk di Sénégal mais li ma gën a mooy bari na ah. Mhm. mais li nga xam moom ma gën a énervé. bi gën a fës bi gën a fës. mooy euh, au lieu que ñu topp fi ñu toll nii jóg. parce que dañu nekk li ñuy wax plan Sénégal émergent. Mhm. plan Sénégal émergent du ay wax. Mhm. jëf la wala ñu koy nañu wàññi wax ji daal te liggéey. waaw waaw nañu wàññi wax ji te liggéey. loolu daal mooy moom moom gën a nawet. te loolu euh, dëgëñ na lépp alors. Euh, ci sa xalaat ni nga ko waxee ndorteel bi mooy yëfu Karim Wade bi ñu commencé sonal. est-ce que médiation pénale Euh, euh, niñ ko fi yëkkatee woon am na sax ñu naan am na ñu dem jot a euh, transiger mais est-ce que médiation pénale boobu buñ ko fësaloon def ko comme solution bu officielle est-ce que mënu woon régler problème yi nii yëpp ci traque des biens médiation pénale yoon moo ko moo ko prévoir. Mm-hmm. te bu ñu fàtte benn affaire. loi loi bi nga xam moo créé CREI yi. Mm-hmm. cour de répression de l'enrichissement illicite. Mm-hmm. dafa ne lépp loo xam ne nii nekkut si loi bi. daf koy renvoyer si code de code de procédure pénale. gars yi dañ koy fàtte toujours. Mm-hmm. am na yoo xam ne code de procédure pénale lañ ko war jëlee. Mm-hmm. pour mottali li nga xam ne ni CREI yi prévoir ko. Mm-hmm. te code de procédure pénale dafa prévoir la médiation pénale la procédure de la médiation pénale. mais médiation pénale pour mu am. il faut ay conditions. bi ci njëkk mooy ñi ko seq il ñu d'accord. bu fekkee ne kenn si ñoom d'accord muy partie civile wala défense bu fekkee kenn si ñoom d'accordul médiation pénale mënta nekk mhm. te médiation pénale aussi lu mel ne par exemple problème Karim Wade bi nga xam ne si te homme politique boobu bu nangoo def médiation pénale mooy dafay nangu ne sàcc na. waaw waaw moo <laughs> duñ ko nga. donc dafa am ay conséquences politiques. man dama am benn jour may xalaat ak suma benn xarit. Mhm. bu ma jegee suma cabinet. Mhm. parce que boobu tension bi bari na. ma ne ko man bu fekkoon de par exemple euh, am naa lu ma war a wax. ñu ngi doon xaar décision bi. ma a ko am naa benn décision boo xam ne nii dama si doon xalaat fan yëpp. guddi ak bëccëg. pour sauver le peuple parce que li intéressé mooy peuple bi. bien sûr li ma intéressé mooy mi tegu si yoon pour ñu liggéey. ma ne ko man am na benn solution médiane. boo xam ne man gisoon naa ko. mu ne ma ban solution nga gis. ma ne ko li ma gis mooy man bu ma doon CREI pour participer modestement man en tant que CREI à à l'apaisement du climat social damay jël une solution médiane la solution médiane c'est de relaxer Karim Wade sur la base des poursuites pénales poursuite pénale yi mooy emprisonnement yeeg yooyu comme ni ma koy waxee am na yoo xam ni man moo ko wax si si si wolof mhm. ma relaxer ko sur les mhm. et sur le fondement de l'article 457

état bi dañ ko mën récupérer du perte dara du perte dara mhm. Macky Sall mi ñu doon wax ne dafa am acharnement ci Karim Wade pour pour des raisons politiques dañ na kat bàyyi na Karim Wade mu génn mhm. kon xeexu ko mhm. xaalis bi aussi jot na ko kon du acharnement du du aussi euh, comme poursuite sélective solution boobu pour man la loolu gën bi mooy mooy solution bi nga xam ne pour man moo gënoon ñu condamne ñu relaxé ko sur sur les poursuites kenn bañ a ko tëj mais sur le plan civil sur le plan des intérêts civils les dispositions de 457 ont vocation à s'appliquer ñu condamné ko à payer des dommages intérêts bu ko defee le trésor public ni ni ni perd rien mm-hmm. et le peuple sénégal sénégalais en sortira grandi parce que danañ xam ne Karim kat tëj nañ ko ay weer ñëw na devant la bar mm-hmm. wala ñëwul suñu yoon nekku si mm-hmm. mais ah poursuivi kat comme loi bi dafa bari problème ñii nii ngi wax loi bi jaar la yoon ñii ngi wax jaarul yoon juge yi relaxé nañ ko parce que nee nañ mën ñu ko tëj ci loolu. Mhm. waaye kat am na ay fautes civiles yu mu def. Mhm. ay fautes de gestion yu mu def. Mhm. dañ ko condamné ci loolu. même bu dee trois cent milliards même bu dee quatre cent milliards. mu delloo ñu xaalis. bu ko defee wax ji nekk daal di frank laayu. man loolu moo doon suma xalaat te waxtaan naa si ak sama benn xarit bi ñuy xaar décision bi. Euh, jamono jii na nga xam ne euh, daanaka yëf yi àgg na ci cappaandaw bu weesoo nag di ñuy xaar muy euh, cassation beeg ñoom seen ñu ngi wax lu bëri amnistie wala grâce ah est-ce que foog nga ne président Macky Sall dina franchir pas boobu. waaw dama lay wax ay surtout man bu ma doon Karim Wade. Mhm. ñaan ñu gracier ma. ndax parce que grâce mhm. dañ koy fàtte. Mhm. dana génn de waaye peine bi ak li ñu ko doon tumal day taxaw. te homme politique. loolu baaxul ci moom. gracier nañ la nga gën bu ma déggee nit ñi di wax à gauche et à droite même des partisans de Karim di wax ne dañu ko war a gracier mm-hmm. mais loolu baaxul ci Karim Wade politiquement ah. politiquement baaxul ci Karim Wade socialement aussi baaxul ci Karim Wade mm-hmm. moralement baaxul ci Karim Wade mm-hmm. parce que tout simplement bu fekkee dañ la gracier peine bi ak condamnation yi day des lañ la waxoon na la yaa ko sàcc day des da nga génn nag am liberté mais loolu baaxul bu fekkoon dañu bëgg dimbale Karim Wade dëgg pour affaire bi jeex dëgg benn yoon amnistie lañ wax amnistie mooy effacer peine mm-hmm. effacer effacer culpa culpabilité mm-hmm. mais loolu encore encore une fois amnistie assemblée nationale moo koy voté. Euh, Macky Sall justement euh, def na fi benn communication bu mu jagleel euh, ay ay télé yu mel ne Sen TV GFM ak yi tamit RTS dëgg-dëgg di tagg kii transhumance yi di jaay transhumance daal pratiquement comme valeur daal benn valeur boo xam ne benn vertu donc loolu nag. Euh, boobu ba léegi coow laa ngi euh, euh, des pënd bi wareegul ñu bari jàpp ne erreur de communication bu terrible la def moom président Macky Sall waaye yow yaa ngi koy jàngatee erreur de communication wala franchise à l'excès. question bu gênante nga ma posé. Mm-hmm. Macky suma suma mag la suma xarit la. Mm-hmm. président Macky Sall. Mm-hmm. mais loolu moo def noonu keroog Kaffrine. man bu ma ko doon conseiller da koo wax. moom la ñu wax màngaan ci wolof jóge foo xam ne dafa raas mhm. dem fu naat Sénégal dafa nekk peuple boo xam ne dafa nekk peuple bu digne mhm. peuple bu fier mhm. Sénégal li ko téye mooy ay valeur morale ñoo ko téye boo nekkee premier président le premier d'entre eux nga nekk président de la république am na yoo xam ne waroo ko waroo ko valoriser waroo def leur son apologie waroo toog ñëpp di la seetaan Sénégal àdduna bi yëpp di la seetaan nga ne transhumance lu lu lu rafet la. lu normal la lu normal la dem bay wax ne la constitution a prévu la liberté d'aller et de venir c'est pas ça. Mhm. la liberté d'aller et de venir buy constitution bi wax bokkut ak loolu. moom xam na ko sax. bi uh-huh. donc euh, man ànduma moom foofu. Uh-huh. transhumance dafa nekk loo xam ne góom la si suñu biir. Uh-huh. démocratie bi ngor dafa am. loyauté dafa am. vertu de femmes et puis moom moo wax gouvernance vertueuse et sobre mais bu ñu wax bu ñu fàtte ne gouvernance vertueuse ak sobre euh, euh, et sobre dafa bëri ay gouvernance gouvernance judiciaire ci la bokk mhm. gouvernance morale ci la bokk mhm. gouvernance sociale ci la bokk mhm. gouvernance politique ci la bokk te boo waxee gouvernance sobre et vertueuse nga indi une chaîne de rupture ni ñu la fañ lay xaare du foofu gouvernance politique ak gouvernance morale lañ lay xaare mooy nit ñi nañ gëm lu ñu nekk bu neexee ngeen ànd bu naqaree ngeen tàggaloo rafetul. waaw waaw loolu rafetul. Hmm. man dama ko rafetlu. Hmm. man fu ma bokk moo tax musuma politique ba ma juddoo ba léegi. musuma bokk benn parti politique. te pourtant ñoom ñëpp samay xarit lañ de. Hmm. xam nga xam nga fi waxee. ñoom ñëpp samay xarit lañ. mais musuma jël carte kenn. parce que am man bu ma duggee si dara damay dem ba jeex. Mhm. bu neexee damay ànd ak yow bu naqaree damay ànd ak yow. mais bu fekkee ne nag bu neexee ñu ànd bu naqaree ma dem seeti feneen. waaye loolu gor moomu ko waaye. transhumance rafetul. kenn mënu ko rafetlu. mi mi ngi mel ne ah, mi ngi mel ne ah nga nga par exemple te en général li si gën a métti mooy ñi nga xam ne ñooy transhumé ñooy gën a ñoo gën ñoo gën. ñoo de ñoo am promotion yi daal. déedéet wax ma loolu ñoo gën a yàq sa ñoo gënoon yàq seen deru ki ñuy fekki. waaw ñoo ko doon gën a. ñoo ko yi. ñoo ko daan gën a xas. ba ba jël leen déglu leen te pour tapis rouge. mais Macky war na yeewu du transhumance mooy fal fii Sénégal parce que nit ñi dañu Sénégal dañu jëppi kuy transhumé. li may dégg ci suuf mooy euh, euh, Xaasim yow 2017 la lay doon wala 2019. sa sa ndënd daal nga fa seen samp pour toog ca palais présidentiel bi ma bëgg nag waxuma waaw la wala déet la. ñu ne sëb. loolu ah nopp baax laa yor. Ah. di nga bàyyi rek ñu taxawaay ci biir àddina bi mais mës ngeen gis ku sobe nii <laughs> kenn mësu ko gis man dama la dama bëgg nekk président ah man daal dégg naa ko yi dem <laughs> soxor de <laughs> ma xoolal nee ma ko dégg moo tax moo war émission bi nag de moo tax nag <laughs> ba jàkkaarloo yow loolu rek tax ma la <laughs> yow nga ne dégg na nga Xassim Touré day bëgg nekk président daa bëgg nekk président de la république sa digganteeg yàlla sama digganteeg yàlla yaa dégg moo tax ma ta jàkkaarloo comme yow yaa source bi kay sarax ma ci rek tontu ma rek grand ñu la yaakaar bëri na de waaw xam naa loolu ah, waaw ñu bëgg dugg ci pale bee ah, sama xeet gi xam nga tey ñi grand yow ba duggoon ci pale bee dëgg dëgg ah dinaa gëj a toog ci ci écran yi fauteuil yi dégg nga di sonn ndax lu man mën naa nekk benn ministre sax. mais mais gis nga ay surtout. pour parler sérieusement sa question bi bett na ma sérieusement waaw bi nga may invité xam woon li nga may invité léegi nag moo tax ma invité la nag. gis nga si euh, réew laa bokk. waaw judd fu mu war a juddoo. bokk fu mu war a bokk. am compétence yi mu war a am kam. fi ñu toll nii ma toll ak. Sénégal yëpp àdduna bi yëpp ñu ngi may seetaan. Mhm. man mën naa nekk président de la République. waaw waaw j'ai les compétences. bien sûr j'ai le profil de l'emploi. am nga base. am naa base. Mhm. Sénégal bëgg nañu ma trop. Mhm. yàlla xam ne ko ak yonent. yaa ngi seen biir xol barke Xaadimu Rasuul. Sénégal bëgg nañu ma trop. dëgg te lool nga wax nii. am nañu ay cercle yu koy wax. man kay dégg naa ko. waaw dëgg la dama la koy dëggal mais dafa bett. li nga ma wax nga posé ma ko parce que bu ma xamoon ne loo yi <laughs> da nga koy wax. mais du si tontu. Euh, murid la ñu des ndax euh, sa digganteeg communauté murid bi. wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ko. yow rek laa laa gis man ci avocat bu am cabinet ci xolu Touba te loolu yaakaar naa ne ah euh, daal Sénégal yow laa fi gis ñi fi nekk ci avocat yëpp benn. Mhm. loolu dëgg la wala dëggul dëgg la. waaw mais noo ko lijjantee. mais lijjantu ma ko. Hmm. sëñ Touba moom la moom la neex. Ah. xam nga dama lay wax benn affaire foofu. cabinet bi bi ma ko bëggee ubbi Touba. yàgg na mais sëñ Touba moom moo sagal moom ma sagal ma nekk premier avocat c'est historique. Mhm. bu ñu permettre mu ubbi cabinet d'avocat à Touba cabinet secondaire. waaw Alaaji Baara Mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram. amiin amiin moom ko njëkk a mhm. parce que kilifa yi dañu ñëw dakaar di ma soxla. pour ma leen di défendre wala may défendre seen i talibé. mais su ma sama cabinet fu mu situé muy avenue Ponty. dafay xat kenn du am si baaxam ak am. waaw mën ma mm-hmm. bi. ma ne ko ah bi fii ubbi fi cabinet kenn mm-hmm. si kër gi nga bokk. dëgg mm-hmm. sa maam. te fii boo fi ubbee cabinet kenn du si kaas. bi mu ubbee cabinet bi mu noppal liggéey avant ñuy ubbi cabinet bi ma dem si sëñ Sidi Matar ak ànd ak ay kilifa ay kilifa wax ko sëñ Sidi Matar sëñ Sidi si ah, dëkk bi mhm. yàlla yàlla yokk ko ah, jàppale ko si liggéey bu rafet bu liggéeyal Sëriñ Touba si barke Xaadimu Rasuul amiin amiin bi ma demee ba tijji cabinet ba pare mhm. mais dama am ay aussi parce que mhm. cabinet secondaire loi bi boo ko permettre ma bind bâtonnier mu gisu si dara lu jagas Sëriñ Bass Abdou Khadre un moom moo soldat la ànd ak délégation mhm. ñoo ba suma cabinet bi inauguré ko mais loolu xam nga sac la ah. sëñ Abdou Fatah Mbacké mhm. kilifa gu baax waaw ndeysaan fees del ak bàttin dëgg la lu nekkoon sëñ Fallou mi ngi si moom mhm, nit ñi nañ ko xam ne nañ xam loolu hmm. la di nga ma fa yóbbu après bu neexee sëñ Tuubaa danaa la fa yóbbu kay bala nga bala ma <laughs> la mu sotti hmm. wax ma wax ma ko de pour pour pour bëgg lu ko nekk wala déet. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla moo tax may wax. Mm-hmm. daf ma dénk daf ma dénk affaire àddunaam. ma nekk avocat bi problème amee man lañ njëkk a woo. pour ma porter plainte contre Moustapha Cissé Lo. mais dafa fàtt xamutoon ne Moustapha Cissé Lo man maay avocat am. te Moustapha Cissé Lo sa jëkkër jooju. waaw lu mu dëgër dëgër. Uh-huh. lu mu mën di nekk nekk. Uh-huh. boo ko wax génn si mu génn si. waaw moom nag xol ba dafa la dama la man daf ma gëm. Moustapha si bari na man dama ko mës a défendre. Mhm. chambre de commerce bu jël maa ko fa installé. Mhm. maa gagné procès bi. maa ko yóbbu cour d'appel gagné ko. yàlla xam na ko laaj ko ah, bi ma ko waxee. Mhm. dafa dëgëroon position sëñ Abdou Fattah dëgër position bi ma jaaxal seen diggante dox li may war a dox. ak ñi ma ko war a seqal yàlla defal na ma si ndam te kenn mosuma si dégg. loolu Cheikh Amar ak. sëñ Boub. sëñ Boub. CCBM. CCBM. ñoom ñaar ñëpp samay xarit lañ ah. Serigne Mboup. ñaar milliardaire yu xeex moom. waaw dama la xaalis dafa manqué Serigne Mboup. Mhm. nekk xale ñoo daan ànd mu nekk suma cousin. Mhm. ba pare talentueux nag. dafa am mhm. talent si si affaire. nekk koo xam ne dafa am loyauté si relation. dëgg la waaw loolu dëgg la. man damay jaaxal sax Serigne. gis nga ren ren jii rek vacances yi nii. sama doom Cheikh Amadou Bamba. moom la jël. ak ay doomam boole leen yóbbu leen États-Unis xam kooku sama xarit la te yëgul ma tën bi dafa ne sama doom la ba ma ko xam ne mu ne ko juree noonu laa ko juree mm-hmm. kooku daf ma jege Cheikh Amar sama diggante moom Sénégal yëpp xam nañu ko mu mm-hmm. nekk avocat mu nekk ku tey mais daa la waxal dara si Amar tey aussi loo xam ne Sénégal xamuñu ko mm-hmm. Cheikh Amar nitu yàlla la waaw Cheikh Amar mii benn mii la nitu yàlla Cheikh Amar xool foog fekk mi nga jàpp Cheikh Amar doo am na benn jour dafa ma woo quatre heures cinq du matin. ma ne ko Cheikh mais ban heure bii nga may woo mu ne ma heure bii laa jàng xasaayit loolu xamuñu ko woon. na ma baal sax parce que bëggul may wax yooyu. waaw. man xalaatuma man dama foog ne. déedéet nitu àdduna de. dama foog ne jas seetlu nañu. wàllu nekk lay nëbbu wàllu nekk lay nëbbutoo. dëgg la ndeysaan. quatre heures cinq du matin woo ma. ma ne ko waa Cheikh heure bi mu ne ma damay jàmm yàlla. Mhm. heure bi laa mën a jàmm yàlla man laa mën a am na benn si ñuy toog waxtaan a moom. mu ne ma gars yi ñu ngi may way guddeeg bëccëg. nit ñi dafa ne man puukaree tax ma koy def. waaw. mais du loolu de dama du tas yaakaar nit. musiciens ay travail la liggéey am ay njaboot. ni may dimbalee baykat yi laa leen dimbalee. mu ne ma lenn xaas yi ma a ko ah. mu ne ma benn benn siw ma ma gën a neex. Ah, ma ñëw si Serigne Saliou Mbacké mu tëdd moom nuyu ko mu ne ma Cheikh na def gëj naa la gis namoon naa la. na li ñu xamul ci yow tamit mooy écrivain nga waaw ah, euh, euh, et que euh, vraiment à tes heures perdues léeg-léeg nga nga takki ne plume bi jël plume bi am am am ci fowee noonu ba may ñu nag le phrase bu rëy boobu le clin d'œil de l'aveugle li kenn xamul lu mu doon. waaw man écrivain laa. Mhm. mais ñu bari xamuñu ko. Mhm. Alioune Badara Beye ba ngi koy nuyu suma grand. waaw waaw sama papa ma koy nuyu. président Abdoulaye Alioune Badara Beye dafay mhm. xaasim. puriste la. dëgg la nee ni may bindee tubaab ak ni ma koy ni ma c'est rare que mu gis ko ci réew mi. Mhm. Aliou Badara Bèye. Mhm. ku baax. dëgg la ma bokk association des écrivains du Sénégal. mais xam kan mooy sama marraine. Mhm. dans l'écriture Mara Aminata Sow Fall. Aminata Sow Fall cëm. Aminata Sow Fall mooy sama marraine. Aminata Sow Fall def na benn jour conférence. mi may seetaan maman maa lay nuyu yàlla nga fi yàgg lool. te wër. mu ne man maay fils spirituel am. Euh, Mbaye ak bu verdict bi génn vendredi bi. ñu ñu weesu euh, euh, verdict nag bu bu xaw a metti vraiment gis nga ba mu xewee dëgg-dëgg euh, jour boobu Sénégal dafa amoon na daal yëg-yëg bu bëri boo xam ne xol yi daal tooyoon nañu ndax Euh, ba mu génnee Mbaye Touré ak euh, Khalifa suma juumale ñoo ñoo yam àtte cinq ans ak euh, cinq millions d'amende dégg naa sa après ñu naan ay confiscation de un un virgule cinq un cinquième de ses biens de de de de de ses biens mm. ak ñeneen ñi ngi xam ne ñoom la ñu bool bokkaloon àtte bi waaye yow ci tàng-tàng bu mu génnee bañ la ba la journaliste yi laajee danga nga ne c'est une décision lâche et hypocrite foofu nag euh, euh, xaas baat ba diis euh, nga wax ko ak vraiment ak ak ak ak tàngat c'est le cœur du frère qui a parlé wala le cœur du citoyen wala l'avocat de la défense qui est peut-être face à ce qu'il considère comme étant une injustice moo tax nga wax lan la dama bëgg nga expliquer ma ce qui s'est passé ce jour-là. ay surtout sama wax boobu. Mhm. dama si jégalu parce que. dafa dëgër. Mhm, dafa diis waaw parce que boo ko waxoon ne c'est une décision hypocrite et lâche. mais mhm. dama bëggoon def yenn précision. Mhm. ñu bëri dañu yaakaar ne décision de justice kenn du ko commentaire non. Ah. décision de gestion justice dañ ko war a commentaire. avocat bi na ko commentaire. université dañ koy commentaire. étudiants yi dañ koy commentaire. léeg-léeg bu fekkoon am na ñoo wax ne mm-hmm. am na ñoo xam ne dañu wax c'est une bonne décision. te loo commentaire la aussi. am na ñoo xam ne dañu wax le droit a été bien dit. mais man bu ma neexee man du ma wax na c'est une décision lâche. waay bu ma neexee du ma wax ne c'est une décision hypocrite. Mm-hmm. nga teg ko fan. defuma waxuma ñi ko rendre. Mm-hmm. waxuma ñi ko rendre ñoom ñoo lâche waxuma ñi ko rendre ñoom ñoo hypocrite. dama ne décision bi dafa lâche dafa hypocrite parce que ay setu. Mbaye Touré ak Khalifa Ababacar Sall ñi ak ñi àndal ñi ngi leen doon topp cinq chefs d'inculpation uh-huh. association de malfaiteurs uh-huh. faux usage de pour uh-huh. dans un des écritures privées de commerce et dans des actes authentiques détournement de deniers publics escroquerie portant sur des deniers publics ak blanchiment de capitaux bi ñu demee xeex xeex bu métti nag lu presque lu mat un mois. bi tribunal rentré décision mu ne association de malfaiteurs bi pro procureur visé woon amul. mooy dañu dégg woon seen biir. pour préparer seen i mu ne kooku dama koy daaneel taxawul. mu ne détournement de deniers publics. amul. taxawul. mu mu écarté ko. mu écarté ko mu ne blanchiment de capitaux amul. mu ne waaye faux ak usage de faux am na. escroquerie portant sur des deniers publics am na mais boo gisee ñu ne décision dafa lâche mooy cohérence pour cohérence logique pour logique boo ne amul détournement amul association de malfaiteurs amul blanchiment nga bàyyi nga nga daaneel yooyu yëpp nga ne am na escroquerie te boo étudier dossier bi pièces yi nga xam ne ñoom Mbaye Touré moom lañ doon joxe pour justifier les dépenses c'est des pièces qui sont distribuées qui sont déposées postérieurement à la remise. Mmh, mmh. c'est-à-dire que dañuy joxe ba pare ñu soog a indi justificatif. waaw te escroquerie avant ñu lay jox nga def ay manœuvres waaw waaw pour làq na bu affaire pour tromper ki la war a jox mu jox la. waaw mais dañuy joxe ba pare ñun leen indi leen pièces justificatives yi. kon xam nga loolu escroquerie am parce que bu fekkoon ne escroquerie am na fa dañuy wax pièces yi nga xam ne ñoom la utiliser pièces fausses yooyu. moom moo déterminer ñu jox leen. waaw. mais jox na leen ba pare. mais boo demee ci comptabilité mairie. wala comptabilité bu percepteur municipal. Mhm. buñ pan nekk par exemple ñu nekk avril pièces yi ñuy déposé. 5 mhm. avril fi ñu toll jot na. Mhm. jot nañ seen 30 millions. mën nañ nag ba le 15 wala ba prochain mois bu ñuy indi bu ñuy jël si. bu ñuy jël si yeneen 30 millions yi. lañu indi pièces yi justifiées. yi ñu jot ba pare. loolu escroquerie mën na fa am. kooku même boo jàngul droit. boo nekkee un non initié boo réfléchir war nga xam ne escroquerie mën na am mhm, foofu. xaju fa dégg nga wax bi. Mhm. donc euh, loolu dafay indi aussi na décision bu hypocrite le mhm. parce que hypocrisie mooy lan. décision bu hypocrite mooy décision boo xam ne ni dafa ñemewut. mën nañu wax sax décision ponce pilate. waaw c'est du ponce pilatisme. c'est-à-dire nga nga cohérent dam ba mu jeex. na fii kat peut-être gis naa lii mais amul escroquerie amul détournement mais faux am na. feu a de feu am na mais amul détournement boo ne amul détournement mm-hmm. escroquerie mën ta am te ñaari délit yooyu mën ñu ànd mm-hmm. soit nga ne escroquerie ngay visé wala détournement mais procureur dafa visé escroquerie visé détournement mm-hmm. donc mu nekk ay délit fourre-tout parce que il fallait ñu feesal ko donc ah, yooyu baaxul ah, moo tax ma wax ko lool ma waxee noonu mais décision bi laay critiqué te bu ma ko doon argumenté juridiquement yore suma big ak sama feuille bu ma ko bindee je Sénégal am na fu ñu ma teg si en droit. dëgg la droit bi xam naa si tuuti. Mhm. bu ma ko argumenté ñu bari bu ñu ko liiree dañ xam li ma leen wax dëgg la. Mhm. ma waxal la tuuti si si Mbaye Touré. waaw Mbaye Touré sama frère bëgg ma sax di wax sama mbokk. Euh, du moom métti na mais sénégalais yi waaw ñu xam xam nga xam nga suma la et puis suma xarit la suma frère la waaye suma xarit xam nga famille dañuy am ñoo xam ne dañuy xarit ba pare nekk dombaay loolu day am moom suma xarit la mm. euh, ñu mës euh, di waxtaan di déggoo ah. mm. mais moom bi moom bi mu ñëwee mairie de Dakar. Mhm. agent la fa ñëwee. Mhm. di rampe ba Mamadou Diop paix à son naam daf ko directeur administratif et financier. ah ci Mamadou depuis Mamadou Diop. depuis Mamadou Diop. Mhm. bii Mamadou Diop demee. su ma mag ju rafet du baax ju bëgg réew mi. ku correct. bëgg lu baax. di defar toujours. muy le président Pape Diop Pape Diop waaw ma koy nuyu. waaw suñu xarit suñu xarit ñëw moom tim <laughs> hmm. daal di kii kat xale bi kat gis naa sérieux ak compétence hmm. moom. du parce que man libéral la hmm. te ñu fi jóge ay socialiste lañ. ma koy ma koy dàq wala ma koy changer. mais man compétence laa gëm sérieux laa gëm dama koy maintenir. Khalifa euh, Mamadou euh, président Pape Diop maintenir ko. ba président Pape Diop demee si kàttanu suñu borom. Khalifa Sall ñëw. nekk moom tu koo xam ne ni ku sérieux la ku honnête la ku objectif bi ñu mu daan ne moom tim les états de service de Mbaye Touré mii mm, ne m'autorise pas à le changer mm-hmm. mu bàyyi ko fii mm-hmm. mu continuer ak moom mm-hmm. ba dogal lii ñëw dal leen ku mel noonu war nga ko topp tamit ñu ñuy gérer budget boo xam ne cinquante milliards la at mu jot <coughs> cour des comptes jaar fa mm, gisul dara gisul dara le régulateur des marchés publics ARMP. jaar fa gëstu dafa leen satisfait si. félicité leen jël leen comme modèle. Mhm. gisuñu dara marché marché public ni ñu ko doon passé lépp tegu si yoon. mais booy su demee bay dee kay xanaa lu rëy moo lay rëy. mais un milliard huit cent millions. Mhm. par rapport au budget par rapport aux possibilités qui leur étaient xam nga ne Khalifa Sall moo gën fort un milliard huit cent millions. xam nga ne Mbaye Touré moo gën a fort un million huit cent millions. Mm. donc euh, yu mel noonu moo tax gars yi di wax décision bi décision politique la. Mm. procès bi procès politique la. mais te Mbaye Touré aussi. Mm-hmm. xam nga bu lay attee. ba mu demee ba ba ba ba demee ba mu jeex àtte bi bu jeexee. dañ lay laaj na la sa wax lan ngay mujjee wax. bi ko président laajee lan ngay mujjee wax bi mu gërëmee ñi mu war a gërëm dafa ne li may mujjee wax mooy man suma papa jurul kuy ku dëgg. sama papa jurul kuy sàcc. sama papa jurul escroc. sa xol sori. xam nga loolu. xolam moo tax mu wax. te papam réew mi ñu bari xam nañ ko si réew mi. Mm-hmm. mu nekk koo xam ne ku yàlla baaxal la. Mm-hmm. Ah, donc bu waxee loolu ah, ñun ñu xam. ak ñi xam kan fan la bokk. Mhm. war nañ xam ne mbay Touré du genre boobu du ko escroc du du faussaire li ma gën a metti loolu la. mënuñu leen condamné pour abus de confiance. Mm-hmm. mënuñu leen condamné pour. détournement digne bi mais ñu leen xalifa yow Mbaye Touré ay faussaires ngeen. leen yéen ñaar ñëpp ay escrocs ngeen. loolu loolu baaxul si nit ku baax. Mm-hmm. loolu du loo xam ne ni lu rafet la. Mm-hmm. donc je crois que. loolu moo taxoon ak suma ak suma ak ni ma xamee procès bi. ak ni ma situé woon ba dem ba sori si. moo tax ma ne décision boobu noonu la mën a demee. mais maa ngi koy jégalu parce que peut-être am na ñoo xam ne daf leen naqari wala na ne si yow euh, président Macky Sall sa xarit la. waaw. Euh, ma bëgg a xam euh, dossier bii nga xam ne da nga ci dugg xoolal xëtër nga ci duggee. est-ce que am na lu mu yàq ci seen diggante wala bu weesoo xam Macky Sall tamit est-ce que dossier bi am na am na daa procès bi est-ce que am na lu mu la yàqal yow notamment si digganteeg ñenn ñi. waaw procès bi yàqal na ma lu bari. Hmm. lu mel ne. waaw du ma si dugg nee loolu suma convenance personnelle du ma si wax. waaw may ko waaw may ma loolu. Hmm. yàq na ma lu bari yàlla xam na ko. waa ah, rawal mais li ma si xam mooy suma diggante ak Macky Sall laal bëgg wax tuuti. Hmm. président Macky Sall man dara rëyul suma bët. dama si sant suñu borom. dëgg la te bokkuma si ñi nga xam dañuy xëcc ak xaritoo. parce que ah. nit nekk na président rek ku jóg ne man sama ah, xarit la non non non man duma genre boobu. dégg nga wax bi président Macky Sall bi muy nekk premier ministre. ñëw na gée ngi naw seet si sama papa yendoo ak moom sama papa mhm. teral ko mhm. ba pare ñaanal ko mhm. mu nekk suma xarit papa mais boobu taxul ñu nekk xarit de ah, ah, ah. déedéet uh-huh. ala Cheikh la seet si woon sama papa la seet si woon ba mooy premier ministre mu xam li góor gi représenté mu dem seeti ko ensuite bi bi mu nekk président en 2012 visite bi mu njëkk def seeti sëñ ma Mokhtar mi ngi ko defee Nganda kilifa yi Touba yi dama dañ lay invité pour nga ñëw ma dem fekk ko Nganda. Mhm. Moustapha Cissé Lo su ma nijaay. Mhm. su ma xarit maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. tey suma loxo andi ma ba si président Macky Sall. na ko président Xaasim mi ngi nii. président Macky Sall na ma Xaasim dama ko mere. ma ne ko mais président la may mere mu ne dama nekkoon si ay yitte bëggoon nga defaan a nga bañ. xam nga tax loolu. waaw bi ñu ko convoqué pour affaire seen affaire soob yooyu. blanchiment blanchiment waaw. daf ma woo président Macky Sall boobu mi ngi toog moom Moustapha ku yàgg lañ loolu man maa ma. lii ay li ma la wax ne mosuma ko nettali président ñi ma koy waxal mosuñu ko mosuma leen ko wax mos président Macky Sall mosuma ko wax président Pape Diop mosuma ko wax mm-hmm. te ñoom ñoo seqoon ñoo seqoon loolu mm-hmm. mu woo ma ma dama bëgg ma suma défense mm-hmm. ne ko ma ne xalaat dans une heure de temps mu woor ma dans une heure de temps dama metti xaasim fa toll ma ne ko président may ma xalaatat bi ma woowee troisième fois jëluma ko suma assistant moo ko jël tontu ko. na ko maître Khassim dafa génn. parce que mënu ma wax na ko. waaw mënoo laa défendre. xam nga tax ma doxalee noonu. Mhm. parce du président Wade xam sama diggante mhm. te temps yooyu ñu ngi xeex Pape Diop xeex métti. waaw ci biir ma demoon jël organiser la défense du président Macky Sall. xam nga lu ñu wax. waaw Pape gis nga li doon wax si Pape Diop mi ngi nii dafa nekk en collision avec Macky Sall

parce que dafa tàgg koo xam ne suñu xarit la xaritam la suma xarit la kilifaam la suma kilifa la muy sëñ Abdou Fatah Falilou Mbacké bi muy dem wuy convocation bi bi mu tàgg sëñ Abdou Fatah Falilou di ku yàlla baaxal dana ko demal te dikkaat dara doo la dal mm-hmm. <coughs> te noonu la demee dikkaat dem mm-hmm. tontu convocation bi dossier bi noonu lañ ko lalee mm-hmm. loolu day wane ne borom kun moo man borom kan waaw makk yi du ay relation yoo xam ne nii c'est basé sur des fidélités mhm. mu am yeneen ñaari mbir muy yeneen ñaari kilifa mhm. yoo xam ne nii dañuy sori si man lool mhm. kenn ki ànd naa man si président plusieurs fois di ko wax lu rafet rek si man keneen ki dañu toog ma nag moom ak président Macky Sall président Macky Sall na ko li may wax ni président mi ngi may seetaan kilifa googu mi ngi may seetaan na ko mu ko maître Khassim mi dama ko estimé dama bëggoon nga jox ko ndigal pour mu jàppale ma ma toog kilifa googu jàpp sama loxo teg si loxo dama maître Khassim jàppale président Macky Sall te kooku lu ma wax dama koy def parce que suma kilifa la mhm. du ma tudd seen mais kon du relation boo xam ne dafa tombé ex nihilo ba pare nag aussi relation fabriquée wala man du ma genre boobu mhm. mais nag euh, euh, su ma xol neexul mhm. parce que moom xam na ne Mbaye Touré suma frère la ah peut-être que dafa bàyyi justice daf la liggéeyam. moom dana def li mu war a def. dégg wax bi mais ñu bëri wax nañ aussi ne mais président Macky ni mu demee Xaasim ba pare di téye frère di ko tëj dafa mel ne Xaasim dafa seetaan wala Xaasim dafa yëgoo ak moom. mais mais mais est-ce que yow sa yow ni nga war a défendre Mbaye Touré dëggantaan est-ce que défendre nga ko noonu parce que xëy na yaa ngi naan yaa ngi yaa ngi sóoraale tamit président Macky Sall. mais gis nga li ma yàkk Macky Sall li ma yàq li ma yàq li ma yàq Macky Sall fan yi hmm. du kenn ku ko yàq Macky Sall. te Macky Sall moom xam ne nit ku wér laa nit ku dëggu laa. nii metti na ma trop. mais man je respecte l'institution. te dara mënta tere ba ba du affection bi nga xam ne am na ko si man. affection boobu dara mën ko di nit mën ko bëgg ba pare bañ ko. dëgg la comme xam nga. dëgg mais dama lay xamal benn affaire. Mm-hmm. bu fekkee ne damay wax te yàlla tax. Mm-hmm. am na sa benn confrère bu bu def benn titre benn jour. Mm-hmm. le maître Khassim Touré entre la peine mais loyale muy mm-hmm. source A. Mm-hmm. xam nga loolu mooy loolu mooy dëgg. je suis très peiné parce que je suis très attaché am ma famille. mais président Macky Sall jusqu'à preuve du contraire. sa xarit la xarit la. du ma du ma du ma du ma du ma du ma yàq. Euh, mais mais gëj ngeen di déggante. waaw gëj ngeen di déggante. waaw diggante boobu doo ko yàq du ma ko yàq du ma ko yàq. mais bu wanee loo xam ne ni lii dafay mar a yàqu. ñaanuma ko yàlla moom ci xam naa ne ñaanu ko yàlla. aussi man je prendrai mes responsabilités. ba mat parce que si réew mi laa dëkk. Mhm. te réew mi bari naa si ay partenaires bari naa si ay xarit de. réew mi bëgg nañu ma ay surtout. xam naa si dara euh, ma ma seetlu daal ne euh, depuis ba euh, ñëm si yàlla sëñ Béthio Thioune yàlla na ko yàlla teeru àjjana fi daaw sa ya depuis ba mu dëddoo ba tey daal. Eh, da nga gën a yokk sa pat loolu lu ko waral loolu. jërëjëf Aïssatou question bii daf may embarrassé. Mm. parce que procès boobu ñuy wax procès des Thiantakoun. Mm. dafa indi woon coow lu rëy fii si réew mi ak si bitim réew. Mm-hmm. yàlla def ma doon defendre les parties civiles. les mm. parties civiles mooy ñi nga xam ne ñooy victime. Mm-hmm. muy Bara ak. Ablaye Diagne ñu bàyyi fi ay ndono ay veuve ak ay euh, xale ay doom yoo xam ne ni ñu noo doole na ay njirim ñu ñëw seet ma bi ñëw seet ma man dama am kilifa bi ma xamee kan lañ seqal dossier bi ak ñan lañ ko seqal dama ne leen ba ngeen may ma ngeen ngeen may ma ba xalaat. parce que man dama jël décision mukk te waxtaanu ma fi ak sumay kilifa te loolu yàlla man na ko seede. ma woo kilifa yi ma war a woo. ñu ne ma mën nga jël dossier bi. mais li lay conseiller rek sa mbokk taalibe nga jëflanteel moom ngay am leen teel ñi ngay défendre aussi ay mbokk taalibe lañ. l'essentiel lépp na ko teg ci yar ak teggin. Mhm. parce que loolu la nit ñi xamee. bul ak benn dérapage. bul wax dara loo xam ne day ñagasal yoon wi wala day ñagasal si diggante ak nit ñi te su yàlla suñu borom jàppale na ma si projet bi ni mu commencé ba ni mu jeexee kenn déggul ma wax loo xam ne nii dérapage la wala loo xam ne dafa tegginuwul bañ naa ko ba Cheikh Béthio bu ma ko daan tudd sax sang bi laa koy wooye wala Cheikh becco ndax cër bi ma ko jox parce que cër boobu yàlla moo ko jox ak Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké danaa la xamal ne la aussi bi affaire mbir mi amee ba ma ñëlee ñëwee seet si ba constitué ma cheikh bu tedd bi cheikh Béthio Thioune. Mm. yónnee na si man pour ma défendre ko parce que. ah bon waaw yónnee na si man. Ah, yónnee na pour ma défendre ko. parce que du benn yoon lañ ma sa seq loolu. Mm-hmm. parce que dama nekk nit koo xam du ma wax. Mm-hmm. mais bari na dossiers yoo xam ne seq nañ ko si suuf. Mm-hmm. am na ñoo xam ne jege nañ ko sax te xamuñu ko. mais am na kilifa yoo xam ne ñu ngi si réew mi. ñu ngi may seetaan te xam nañ li may wax. am na ay dossiers yoo xam ne am na ma lijjante ko te kenn yeggu ko. donc bi affaire bi amee yónni na benn kilifa si man. pour ma défendre ko mais ñun dañu am ay règles déontologiques. loolu mooy lan mooy parce que avant muy yónnee si man ñu ñëw si man fekk na am na ñoo xam ne jiit nañ ko si man pour ma défendre leen. donc su may règle déontologique may ma. ma bàyyi ñaaw ñi xam ne njëkku naa waxal ak ñoom. dem ci moom dem si cheikh bi. bi procès bi jeexee. dama ne woon ma wax say confrères yu bari woon nañ ma. yàlla xam na ko ak yonent bi. pour ma ma mais dama ne leen man du ma wax. parce que li ma waroon def def naa ko. Sénégalais yi li ñu waroon xam xam nañ ko. mais damay profité si occasion pour wax si lu gàtt rek. mooy pour di ko jàllee Serigne Touba Serigne Mountakha Bachir Mbacké. xalif général de Mourides. parce que Cheikh Béthio loo si mën dégg ku baax la. ku tedd la ku Serigne Touba Serigne Saliou defar la. donc bu fekkee ne ku mel noonu yoonu Mouride ñàkk na ko. yoonu diine ñàkk ko waa Sénégal ñàkk ko ah, war nañ ko war nañ ko war nañ ko war nañ ko war ko jaalee sëñ Mountakha Bachir bi nga xam ne woon moo fi toggal Serigne Touba tey jaale ko waa réew mi jaare ko Serigne Saliou Thioune mi nga xam ne nii mooy mooy moom moo fi ñu toll moom mooy yor xilaafa gi si ndogalu Touba mm-hmm. jaale ko ay soxnaam jaale ko ay doomam yëpp yoonu murid ñàkk naa si lu bari am na si ñoo xam ne si ñoom ba léegi dañuy coordonné ak man di ma woo ndax bëgg guñ am bëggal guñ ma bëgg mm-hmm. koo xam ne ku ko jege la mm-hmm. ku jege woon Cheikh Béthio la woo na ma waxtaan ak man man wax ma laaj ma si lu ma nekk di ma wax ne ma la bëggee woon keroog bi nañ la waxee woon ne noonu lañ la bëggee noonu la gën a bëggee tey jii mm-hmm. am na sax ñoo xam ne si ñoom si bi ay surtout li may wax ne yàlla moo ma tiim nee nañ ñoom buñ sañoon seeni i doom jàng droit pour nekk avocat. parce que ni ma ni ma gisee ni ma doon doxalee procès procès bi ak ni ma doon liggéeyee suma liggéey. Mm, dañuy dem ba mujj gi ñu nekk sama fans. daan na ma vraiment buñ sañoon sax ñun xaasim ñu am doom ñu ñëw nga formel ñu ko mu nekk avocat. ma si sant yàlla bu baax. di ñaanal Cheikh Béthio. yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko sëriñ tubaa sëriñ saaliwu tertu tertu bu rafet mhm. teg ko si loxo sëriñ tubaa sëriñ tubaa teg ko si loxo loxo rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu jébbal ko suñu borom parce que am nañu rafet lañ jot si moom si parce que jëf ji mu doon def mhm. wax ma dara mais lekk yi mu doon séddalee mhm. di ko jox ay ñoo xam ne nii seen ay néew ju doole lañ di si def màggal gu jot li mu doon def gàmmu li muy def jëf jooju mënta neen maa ngi koy jaale Cheikh Béthio maa ngi koy jaale Serigne Saliou di ko jaale ay rakam di ko jaale ay veuvam di ko jaale cant kon yëpp di ko jant di ko jaale murid yëpp di ko jaale islam gi yëpp loolu daal nga moo loolu laa si waroon wax mais lu wees moom si procès bi comme ni ma la ko waxee bëggatuma si wax parce que góom kenn du ko xolli mhm. liñ fi ñu toll li ñu mën def daal mhm. mooy ñaanal cheikh bi mhm. yàlla jàppale ko suturaal ko ba teg ko si loxo ko tedd kii ñi nga xam ne dafa bàyyi daf leen bàyyi noonu li aussi héritage bi dafa luur héritage boo xam ne ni bu luur nag boo ko yoree da nga war am nooy doxalee pour yaakaar bi am si yow yaakaar boobu bañ tas. Mhm. mais je crois et je suis fondé de croire que ñi nga xam ne bàyyee na leen mbir mi. Mhm. muy les cantakun ak seen persévérance. Mhm. ak seen discipline. defe naa ne bu ñu continuer danay entre danay entretenir le flambeau. beneen sujet euh, euh, euh, maître Khassim Touré mooy su ma la waxee criminalisation du viol loo may tontu. mais ay seetlu yéen a grave quoi parce que parce que loolu. <laughs> Uh-huh. criminalisation du viol. ma li ma si jaaxal mooy loi bi voté nañ ko te dégguma kenn wax si. te lu graaw la loi bu mm-hmm. graaw la. Mm-hmm. respect pour les femmes. Mm-hmm. bu ñu fàtte soxna maam Diarra Bousso Proxaan. mu mu mu maam Cheikh Ahmadou Bamba. bu ñu fàtte maam Fade Woy Fa Wade Wele. bu maam El Hadj Malick Sy. bu ñu fàtte maam Soxna Kumba Ndoye bu maam li maamu Al Mahdi. bu ñu fàtte Alioune Sy te tooy jata bu buñ fàtte yeneen jigéen yu baax ñi nga xam ne am na si réew mi tey yii jigéen ñu mel yow ñu ngi fi ñu ngi si barreau bi ñu ngi si magistrature bi ñu ngi si politique bi ñu ngi si économie bi ñu ngi si kër ga donc jigéen dañ ko war a jox cër jigéen dañ ko war a respecté man de respecté naa jigéen yi jox naa leen cër mais dafa mel ne dañ leen xaw a ragal quelque part jigéen waaw dañ leen xaw a ragal ah. fi ñu toll nii da nga mel da ngeen ñuy ñu jigéen waaw yéen jigéen ñi da nga fi ñu toll nii c' est la terreur ah. lan la terreur ah. <laughs> des parce que parce que viol viol phénomène de société la. Mm-hmm. déjà devant le tribunal correctionnel wala devant le tribunal des flagrants délits viol rek saa bu amee foofu rek coow moo fay am. Mm-hmm. day am ay erreurs judiciaires. Mm-hmm. ñenn ñi dañuy commercer viol dañ koy commercer. ah oui waaw dañ koy commercer waaw gis diw. Ah. sa doom. ñàkk ndawam xam nga fu mu ko ñàkkee nga monte ko na demal kat na diw mële parce que tane na tuuti am na sutura nga ne diw mooy bi moomu violé te xale récitéloo ko formé ko mu dem ne bàyyi diw wala grand diw moomu violé ñu woo la waxtaan avant dossier yi avant muy àgg tribunal yu bari dañ koy waxtaan si koñ bi ak si kër gi de mm-hmm. ba avant muy àgg si parce que parfois bu juboo amul la egg si tribunal mm-hmm. ñu ñëw ne la joxel temps bu fekkee ne jubóo ngeen si li ñuy joxe pour ñu nëpp nëppal ko mbajanam tribunal boo joxee ñu bàyyi mu dem noonu même fekkee ne yow violé woo xam nga loolu commerce la mm-hmm. erreur judiciaire parce que nit mooy atte mm-hmm. te yàlla rek moo du juum mm-hmm. mais nit buy atte day juum te viol bañ koy def fañ koy defee en général ñu bari duñ ko fekkee de dañ koy def foo xam ne nii par force la par surprise la par violence la dans des lieux yoo xam ne c'est pas des lieux indiqués mm-hmm. ñii tuumaal na la rek na la diw moom ma violé mm-hmm. nga ñëw jàpp ko tëj ko dix ans mm-hmm. wala tëj ko cinq ans mu am loolu mu am problème de preuve léegi sax commencé nañ di def ay test ADN te test ADN yi am na marge d'erreur ñu koy fàtte ah def c'est pas une comme la Bible. ñu le Coran. Mm. test ADN da nga koy da nga koy def après am ay marge de d'erreur. yooyu yëpp nga boole ko mu nekk un phénomène de société. Mm-hmm. ñu dem yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko organisation des droits de l'homme wax ñu si. Mm-hmm. chef religieux yi waxuñu si. Mm-hmm. dama yaakaar ne bu problème bu mel noonu ak li mën a si ay ay ay ay ay ay ay coono. ak ay métit ay naqar parce que bu ko criminaliser. peine yi nga xam ne nii dañ koy daan ñi nga xam ne dañ leen ko jiñ pour bu ñu àtte dafa nekk peine yu dur. Hmm. peine yu lourd. yow erreur judiciaire bi ngay xalaat. te de ak leneen ak leneen te et puis day am détention préventive. Hmm. avant ñu lay àtte day yàgg parce que chambre criminelle moo koy xam. Hmm. comme li ñu criminaliser la le trafic de drogue. day jël temps day jël temps. te bu dee nit ki innocent na. ñu ñu ñu ñu ñëw pour ñëw àtte la. tu as vu avec toutes les erreurs que je viens de de citer tout à l'heure mooy affaire erreur judiciaire. Hmm. mooy affaire euh, comment dire commerce beeg chantage beeg règlement de compte yi nga xam ne yëpp day entouré en général. Hmm. le viol waxuma ne viol amul. Hmm. parce que am na ñuy violé amuñu maîtrise de soi amuñu retenue amuñu tenue ñooñu dañuy am na ñuy violé ah. mais yu bari aussi yow yow da ngay wax ñi nga xam ne. waaw l'autre l'autre euh, la médaille moo tax. c'est-à-dire quoi bi waroon na see xalaatam. démographe bi waroon na see wax. est-ce que c'est sur la dû à la surpopulation ou pas mm-hmm. psychologue bi war na si wax pour xool ba xam mentalité mm-hmm. des gens sociologue bi war si wax mm-hmm. juriste yi war na si wax muy avocat muy magistrat chef religieux yi war si wax muy église comme musulman donc ñu bari dañu waroon joxe ku nekk sa xalaat parce que phénomène de société la ñu xool fan la mal bi nekk la racine du mal ñu jëm ko diagnostiqué jëm la thérapie la plus appropriée. mais est-ce que loolu maître mais ñëw rek. waaw jàllale ko comme lettre à la poste amul benn débat. Mm. coow li a kenn man dégguma kenn wax si. Mm. te c'est grave parce que man je suis contre le viol. Mm. parce que jigéen dañ koy suturaal. jigéen dañ koy te da nga a ses pulsions maîtriser sa sa parce que moment de faiblesse la. mais am dañuy waroon jël ay mesures d'accompagnement et par exemple maa j'avais i à l'occasion d'un débat que excuse de provocation yi am na délai yoo xam boo ko defee bu fekkee ne di dafa am loo xam ne ni moo waral nga def délai bi daf lay exonérer sa responsabilité pénale dafa indi ay jéggal comme lan comme par exemple xale yi ngi gis fi ñu toll nii ay setu ñu bind fii seen jéem a 18 ans la ñu am wala ans ay xale lañ te doole mag yow magoo leen ëpp leen mel ni ñu war a mel am far te ay mineurs la ñuy doon dem ànd ak góor seen copain seen xarit ba jaxasoo am seen diggante fekk ay mineurs lañ te bul fàtte ne le consentement en matière de mineur viol sur mineur non non le consentement ne va ne vaut rien hmm. mën nga ànd ak koo xam ne se coppin la mu am 16 ans wala 17 ans nekkagul majeur nga dem tëdd ak moom mais ñu war la tëj 10 ans parce que viol sur mineur 10 ans la hmm. te fekk sa copine la te bi muy ñëw del seet si moom sax mën na sàkku ngeen tëdd hmm. ñu tëj la dix ans ñu ne dañ ko criminaliser léegi mu ñëw sol ni mu a sol mel ni mu war a mel te duñ bind bind ñu si jéem la ñaata atam la xanaa dañu bëgg léegi kuy daf kuy am copine nga laaj ko sa carte d'identité mais loolu sama am nga la ay surtout ay surtout xam nga loolu moo tax man la bu fekkoon na sujet bi dañ ko teg si toog kaw table bi ku nekk dana jox sa xalaat approche pluridisciplinaire boobu mm. ku nekk jox sa xalaat mm. ñu xam lu ñu mën a juguler le mal il faut ñu renforcer aussi les preuves. Mm-hmm. parce que des mesures d'accompagnement dafa accompagner loi boobu. Mm-hmm. parce que loi bi daf ko criminaliser le viol maintenant. Mm-hmm. mais il faut renforcer les preuves. d'accord léegi il faut s'il vous plaît il faut renforcer pour bu bu ku dem ba ba nga xam dañu koy jàpp pour tëj ko. une lourde peine. ñu mën ko teg fu dëgër. d'accord léegi léegi léegi maître il nous reste euh, euh, peut-être moins de vingt minutes. léegi te tey dese bëri na léegi mais foofu euh, il faut que ma ma ma ma ma leerlu la dala rek pour ñu ñuy seetaan. mooy euh, on on s'entend bien on a bien compris que en aucune manière yow maître Khassim Touré excusez woo le viol justifié woo le viol. déedéet justifié ma le viol. excusez woo ma le viol excusez ma contre le viol. voilà loolu laa bëggoon parce que xam nga dafa am ñu ñuy déglu ñoo xam ne. déedéet je suis contre le viol xëy na seen xam-xam waaw seen xam-xam. naa ko. c'est bestial voilà voilà mais sénégalais yi moom laa bëggoon. loolu mu leer parce que on sait jamais xam nga euh, boo précisé wul tam suba non mais ñi ma ñi comprendre voilà moo tax xam nga waxin la mais dama bëgg mesure d'accompagnement rek exactement parce que la société qui doit répondre xam la tam li nga d'accord ci mooy ay jigéen lañu te xam loo gis dafa am médaille dafa am ñaari côté mhm. te comme noonu ñun ay jigéen lañu am nañu ay jëkkër am nañu ay frère am nañu ay càmmiñ tey mun comme ni nga waxee rek li nga wax noonu erreur judiciaire yooyu mën na dal kenn mën nañu accuser kenn fekk innocent la loolu yëpp mooy li nga wax rek mesure d'accompagnement ak ko laaj xalaat ku ne ba ñu ba xam ne yëf yi buy génn tamit euh, dinañ jël ay euh, en tout cas mesures yi yëpp pour ñu bañ a dal ci ko innocent loolu d'accord naa ko hmm. bii nag euh, mooy li nga xam ne fii nii moo sénégalais yi bañ nga ngànkee ba léegi yàbbiwuñu ko ndax na mu pataawee moo tax yëf bi muy coowal euh, Aliou Sall beeg Petrotim ak yooyu euh, waaye yow li la ci li ma la li ma la ci bëgg laaj Sénégal yi di yaakaar sa tontu euh, ndax ni ma ko waxee rek yow avocat nga moo xam ne partisan woo amoo par parloo yow droit ngay waxal ak askan wi surtout mooy enquete bi nga xam ne procureur de la république sëñ Bassirou Guèye ubbi na ko ci yëfu Petrotim bi enquête boobu ñëpp ñi ngi koy. Euh, ñi ko ñi ko rafetlu daal dégg gu ma ko bëriwul euh, doy na waa si ñoom euh, appel à témoin bu procureur bu wax procureur bi sax na mu waxee jaaxal na leen donc ba tax na ñu bëri jàpp nañ ni enquête boobu procureur ubbi pour leeral yëfu petro time bi amul benn sens ndax du mës a leer bu dee foofu la lañ ko jaarale sa xalaat ak yow sa jàngat juriste bi mel na yow laa bëgg am ci lii. ay surtout affaire pétrole bi ak gaz bi. bari na coow maa ngi doon hmm. waxtaan ak sumay xarit sax ne leen est-ce que du tojal <laughs> parce que parce que parce que cat dafa gaaw dëgg la parce que mësuñu am pétrole mësuñu am gaz mais mu comme commencé am mësuñu guñ si un sax benn litre amaguñ coow li bari ah mën na am sax muy tojal mais mais mais dama dama gis ne bala ma la tontu si Bassirou Gueye ah. pétrole ak gaz fu mu mu feeñale fay indi révolution dëgg la révolution dans le comportement mm-hmm. révolution dans l'économie même les agrégats macroéconomiques daf ko impacté révolution sociologique révolution sociale parce que dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk lu garaaw dafa am donc li ñu waroon def mooy jàngal Sénégalais yi à travers des forums ak des séminaires des ateliers lan mooy pétrole. Mm. lan mooy gaz. Mm. et puis ñu xam ne aussi. Mm. pétrole ak gaz boobu day jeex. Mm-hmm. te économie ñetti secteur la ko yor. Mm-hmm. am na secteur primaire primaire. Mm-hmm. am na secteur secondaire am na secteur tertiaire. pétrole ak gaz boobu suñu borom baaxee ñu. heureusement que le président a été très inspiré. temps yi organisé nañu jamono jam ñaajo. Euh, ce qu'on appelle le débat sur le contenu local. concertation nationale. local content en anglais. en anglais. Mm. cest ñu xool comme li ko waxee barki dem jam ñaajo mm. lu ñu mën a approprier wu. Mm. ñun Sénégalais ak notre secteur privé les revenus qu'on ak les les. nan la mën a irriguer notre système agricole. nan la mën a irriguer ak nan la mën a arroser notre système commercial. ak na mën a irriguer ak na mën la notre système industriel. loolu mooy véritable débat bi. c'est-à-dire ñu tibbee ci gaz bi tibbee ci pétrole bi daf ko ci yeneen secteur mu suuxal leen naatal leen parce que loolu mooy indi développement. Mm-hmm. Euh, euh, dama dafa am loo xam ne euh, chaque année ñu ma invité la chaque année am ku ma ne foog nga laajee ma loolu ma koy fàtte bi yoon dama ko bind bañ ko fàtte. Mm-hmm. mooy gis nañu sama sama moroom avocat yu bari sa conféré yu bari dugg ci politique. Mm-hmm. di politique xam nga yi nga wax fii sànq sur le jeu d'honneur bi di nga tojee. coowal eh, eh, pétrole eh, timbeeg yooyu ñi ko tojee noonu bariwul ba tax na ñu bari gis ne politique xëy na war nga fa am place looy xaar. waaw ay surtout jërëjëf ñu bari wax lañ ma ko. man ba ma juddoo ba léegi mosuma politique. mosuma baat sama baat sa kaw. mosuma bokk benn parti politique. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp samay xarit la jox. Ah. Mm-hmm. ñoom ñëpp nag tant qu'ils am na cofeel si ban am nañ affection si ban am naa affection si ñoom mm. président président Macky Sall suma mm. xarit la suma frère il a beaucoup d'affection pour moi je m'en honore comme je disais tout à l'heure mm. mais am na ñeneen maa jël position boobu nekk à équidistance de toutes les pour être mais je ne dis pas que je ne vais pas faire de la politique parce que justement René Dumont le disait René Dumont il disait que les problèmes politiques sont les problèmes ba war a politique. Ah. ba dem ba gis loo xam ne convaincre na parce que boo gis ma réticent. Hmm. dafa am yoo xam ne man mënu ma ko dund. dëgg la man bëgguma wor. Hmm. bëgguma fenn. Hmm. ma di tricher. xam nga wax bu ma dugg si benn ko damay dem ba jeex takk lu ma si am loolu la. mais tey ma añ fii suba ma gàq fee loolu. du suma non non xam nga loolu. <laughs> et puis c'est répugnant. c'est répugnant <laughs> ma ne. waxuma dina def politique. parce que a que adduna day dox. mais bis boo demee ba war a def politique. Ah. ci condition yi leer laa koy defee. Ah. te jikko ji nga xam ne Sénégal moom lañ ma xamal ba bëgg ma. muy dëggu mm. ah sérieux mm. correct mm. ah di wax dëgg. loolu nga xam ne Sénégal moom lañ ma xamal. dara mënu ma ko yàqal bu neexee yàlla. donc bala maa dugg si politique. dama koy xool lëriñ bi ko ba mu leer naññi nga xam ne na ma naññi. ma dugg bu ma ma fa am baax na mais li ma fa am yëpp fi mu toll nii institut eh, politique mais li may li may def si ay ay affaires sociales. di jàppale ni ñi si lu néew li nga xam ne suñu borom jox na ma ko mais bari na ay leader politique yoo xam ne. xalaatuñu ko sax si wér. xalaatuñu mais dama xam ne politique dafa metti dafa bari ay mbir yoo xam ne nii man attanu guma ko. Mm. mais bis bu ma demee boo war a politique nag. Mm. Sénégal yëpp nañ xam ne daan maa ngi politique. Ah. nan laa politiqué ak fan laay ko wax. mais damay gërëm seen kër gii. Mm. di groupe Futurs Médias. Mm-hmm. muy sa président muy Youssou Ndour. Mm-hmm. di suma xarit. Mm-hmm. bërki démb dafa toog ak Birane. mu ne ko Birane. mun a mun a ko dama bëgg nga xamee sa papa Xaasim mii mm. kii original xarit la waaw mooy xarit mu ne ko ah mu ne ko mooy xaritu démb mm-hmm. mooy xarit bu xarit la ko yàlla xam na ko ak yonent bi Birane nekk xale bu yaru xale bu teggin xale bu correct waaw discipliné donc loolu day wane loyauté bu mm-hmm. Youssou Ndour ak son sa fidélité en amitié mm-hmm. muy suma xarit nag et j'assume mes amitiés moi mais groupe Futurs Médias animateurs yi ak journalistes yëpp sumay xarit lañ ay talent dafa bëri macha allah. ñu mm-hmm. ñëpp ngi leen di seetaan ñu ñëpp ngi leen di déglu. Mm-hmm. ma terminé si ay yow Aïssatou. sa mm-hmm. Aïssatou gor nga. non Aïssatou da nga baax Aïssatou. Euh, fi mu toll da bokk si journaliste yi nga xam ne non su ma kanam nga màggee su ma kanam nga màggee mais <laughs> doo changé <laughs> yaa ma yar toujours yaa ngi tendre vers la perfection te li ma gën a neex mooy ni nga fonkee si liggéey man dama ah. bëgg ko fonk liggéeyam te macha allah fonk nga sa liggéey respecté doo toog yàgg woo maître xaalis bi tamit dama soxla dara naa fa jaar ah, déedéet yàlla rek boo jotee sa émission jotee keroog bi ma wooyee ah. dama tiit <laughs> xam ah. damay bëgg léegi di la ndam di gis xam nga parce dama bëgg lu baax dama bëgg nit ku baax te yow nit ku baax nga émission bi yàlla na si yàlla bu sel si cat boo xamoon ni ko nit ñi di suivre dama dem Europe mais foo tourné xam nga européens yi dañ la bëgg. waaw xam naa waa diaspora dañ la bëgg. mais ma kër fu ñu ma invité bu ma demee. dañ may dañ may wax face to face. ay studio Fall xaasim face euh, uh-huh. loolu day tax mu uh-huh. nekk challenge pour yow. défi pour yow. ça fait partie des émissions phares. du Sénégal. ko gën a travailler. gën a sérieux. te ma yóbbal jox la benn yóbbal boo xam ne benn kilifa bu mag daf ma ko waxoon. Uh-huh. benn kilifa bu mag dama nekk di waxtaan ak moom benn jour mu kilifa gu mag gu baax. koo xam ne suma xarit daf ma bëgg. dëgg mu ne ma xaasim mu ne mu ne ma pour être contesté. il faut être constaté. waaw phrase boobu nangu naa ko si yow. kooku ma danaa tudd sax parce que dama bëgg sax ñëpp jariñu si. muy président Demba Kandji. ah mais ça oui waaw mu nekk nit ku baax xam naa ne li may tudd turam nii sax du ko neex. mais moom moom moo waxoon dama moom moo waxoon dama xaasim. pour être contesté il faut être constaté nit ñi bu ñu la constaté constaté wu duñu la contesté donc loolu maa la koy jox yóbbal di ko jox képp ku si mën a jariñu ñi lay seetaan képp si mën a jariñu nga def ko bréviaire daf ko vad mécom nga continuer si direction boobu maa ngi jégaluwaat encore une bonne fois di nuyu Sénégalais yëpp di yeesal suma fierté ak suma kër euh, ak ñoom mm-hmm. di yeesal su ma déggal leen di nuyu sumay mbokk uh-huh. di nuyu sumay xarit di nuyu réew mi yëpp di ñaan yàlla ak yonent bi ak barke Xaadim Rasul yàlla wàcc fi tawfeex uh-huh. ba faw jërëjëf alors c'était <laughs> maître Khassim Touré euh, ñu koy gërëm di ko sant c'était le mot de la fin ñu lay gërëm bu baax di la sant di gërëm sénégalais yi nga xam ne ñu koy seetaan di gërëm toute l'équipe euh, de la euh, TFM et puis on se donne rendez-vous incha allah dimanche prochain au